élection yi élection yi bu ma juumul 2024 la élection yi yii di ñëw nag insha allahu taala bu ma juumul Bassirou Diomaye Faye man na cee bokk mën na cee itam bañ a bokk Amadou Ba itam mën na cee bokk insha allah waaye lu mu ci man de am ginnaaw ñoom ñaar ñoo taxaw ci nujum yi gën a kawe ñoo ci gën a fës daal ñun ci ñoom lañ gën a am yaakaar mm-hmm. dañ ñëw ci ñaari ñooñu xool ci xam-xam fan lan taxawee ak kan moo ko ci gën a jekku ak kan moo ko mën a jël lawx bii nag ñuy wax lawxul xayaat dafa doon lawx bu yéemee yéemee man na cee xam sax nit ki ban jour lay faat man na cee man manees na cee xam ku jigéen kii ëmb góor la ëmb wala jigéen manees na cee xam tukki bii ngay tukki dina neex wala du neex manees na cee xam ba xam liggéey bii ngay waaj a dugg dina baax wala du baax moom moom moo gën a xóot ci seet waaw seet nag dafa bëri ay façon ak listixaar waaye lii mooy lawx bi nga xam ne moo ji gën a xóot manees na cee xam loo ne ndax lii dafay tolloog aaya bi nga xam ne allazina yuminuuna bil ghaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqna aaya boobu lay lay lay lay tollool léegi bu ñëwee ci lawxul xayaat moom moo commencé un ba vingt set mm-hmm. lawxul xayaat maanaam mooy lawxu boo xam ne chiffre yi loo ci xool rek mu taxaw ci loolee lu baax la lu ñu am yaakaar la mm-hmm. lawxul mamaat bii moo commencé moom loo ci xool bu ci taxawee ci chiffre chiffre yi bu mu ci taxaw rek loolu amee su ci yaakaar bu fekkee ku feebar la day faatu bu fekkee ku tuuti la du ñëwaat bu fekkee lu réeroon woon la du feeñ bu fekkee xeetu mel noonu kon dañu ñëw ci njëkk a jël jomaay fay waaw tur boobu rek la jël waaw jërut boole Basiiru bi jomaay rek la ñuy jël léegi boo jëlee jomaay jumaay fay ci boppam boo ko jëlee jiim la ak miim ak alif ak yaa boo ko calculer daf lay jox cent quarante quatre léegi ñun dañoo bëgg a xam intixaabaat yi di ñëw maanaam élection yi di ñëw moom fan la taxawe léegi kon buñ jëlee loolu buñ jëlee jumaay fay ci boppam tey tey la bon jour tey la alxames alxamis ngay bind alxamis alxamis ci boppam boo ko calculer mi ngi lay jox neuf cent quatre vingt léegi kon ñaar yi ngay njëkk a jël nga boole ko da ngay jël cent quarante-quatre nga pilis ci neuf cent quatre-vingt-un raïsub dawla li ñu xëccoo mooy euh, euh, réew mi raïsub dawla mooy président de la république ci arab léegi jëmmi raisu dawla ci boppam boo ko seetee mi ngi lay jox six cent quatre-vingt-sept six cent quatre-vingt-sept léegi boo paree dañ ci plus vingt-neuf boo noppee nga plisaat ci vingt ci tënk boo jëlee cent quarante bis bi ñu nekk nii muy neuf cent quatre vingt et un. waaw plus raisul vingt sept. bii mooy weeru arab bi nekk. vingt tey la vingt neuf ci weeru olof bi. nga pilis ci vingt yi boo xoolee lépp daf lay jox mille sept cent mille moom la lay jox. léegi 1761 bii rek ngir ñëw moom ngay soxla lan nga ci yittewoo 1761 bii ci lañ mën a xamee Bassirou Diomaye Faye ba xam ci lawxul xayaat la taxaw sori wala dina bokk wala dina jël affaire bi wala du ko jël wala du ci bokk wala du ci sori wala ci boppam bu fekkee itam dina sori itam moom ak Amadou Ba kan moo gën a nag kan moo gën a jekku mbir mi kan moo gën a taxaw ci affaire yi te loolu sax dinañ ci ñëw ndax Amadou Ba da ko gën a fonk sarax te loolu dinañ ci ñëw ci kanam léegi boo jëlee mille sept cent soixante et un da nga koy moyen par trente nga xam mille sept cent soixante et boo ko dee moyen par trente dafa yeex da nga koy moyen par trois cent boo ko dee moyen par trois cent di ko moye par trois cent di ko moyen par trois cent day dem ba des chiffre bii vingt et lay des vingt et un boo xoolee 1 la ak 2 jëmmi 21 léegi nañ xool fan la bokk ci ci fii ci ñaari tableau yi boo xoolee un moo nekk ni 2 3 7 8 9 13 14 15 18 19 20 21 25 26 27. 21 kañ la ngeen nii. 21 mi ngi nii. kon moom mi ngi bokk ci. ci lu bu ci lawxul xayaat la bokk. bu baax moom Jumaay Fay. Jumaay Fay kon mi ngi bokk ci lawxul xayaat. bu baax kon dèjà moom ay mbiram baaxagun na. nooy waaw nooy na. Mm-hmm. waaye nag am na leen luñ ci mën a xam. ndax boo xoolee un boo ko jëlee le plus ci deux bi wax naa ko léegi trois la lay jox. Mm-hmm. chiffre trois bi tamit boo ko xoolaatee tamit mu ñëw fii gis nga ko. nga xam dajee bokk ñaari yoon. 21 mm-hmm. euh, plus 3 loolu ñaata la 22 3 lay doon. 24 jàpp 24 heures yooyu. 24 boo ko divisé par 2 loolu ñaata la lay jox 12. Mm-hmm. boo ko séddalee ñaari yoon 12 la lay jox. Mm-hmm. boo jëlee xurufi laa ilaaha illallaahi. 12 xaraf la. Muhammadu rasulillahi 12 xaraf la. kon moom bu fekkee xam na sëriñ boo xam ne xam na dara te man xalwatu moom ci laa ilaha illallah ci lay faral Muhammadu Rasulullah Jomaay ci lay faral Basiiru la Basiiru Jomaay Fay waaye Jomaay Fay rek ngay jël Jomaay Fay waaw boo Basiir gi waaw boo jëlee li ñu wax aradul xarbi yi dafa am aradul sharqi yi am ci Jomaay waaw moom bu fekkee xam na li mu war a def dëgg ab sirrum dëgg ndax donte suñu borom mooy joxe nguur xulillahumma maalikal mulki tuutil mulka man tasaaw tuutil mulka man tasaaw tuutil mulka man tasaaw bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir waaye ci ñaan yàlla nit ki itam mën naa dugg lu xalwa ngir jot ci dara moom bu fekkee xam na ku xam dara wala ci boppam mu mu mu maanaam mu siq koo xam ne xam na dara bu xamee yoonu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bi ni liggéey ci xalwa bi kenn mënu koo tee jot ci mbir waaye bu dul loolu moom du ci jot ndax day am ay gàllankoor ndax boo xoolee bu ñëwee ci Amadou Ba boo xoolee da koo ëpp doole ci wàllu mystique te ah. waaw te du ko gën a fonk sëriñ gën koo fonk ñaan loolu nag li la koy waral mooy maanaam li ma koy xamal mooy ci la lamaxul xayaat bi ci dañ koy xamee ndax boo jëlee jëmmi Amadou Ba boo koy calculé doo ci boolaale xel ku dóor gi mm-hmm. waaw jëmmi Amadou Ba boo ko calculé naa jël lépp rek ak bisub alxamis bi nga yokk ci raïsub dawla gi nga yokk ci 29 yi 29 boo ko xoolee ci arab mooy takun nga yokk ci kaaf gi moom boo boolee ab limam lépp nga xool ko daf lay jox cent 1660 1665 1665 boo ko jëlee nga koy multiplier par 300 dafay des chiffre bi muy 15 boo xoolee 15 lay des 15 boo xoolee 5 la ak boo xoolee 6 la lay jox. léegi 15 boo ñëwee boo ko xoolee fii gis nga ko fii fii nga koy gis mi ngi nii 15 kon moom tamit moom ak Bassirou Diomaye Faye ñoo bokk benn benn mbaaw ko mu taxaw ñoom ñaar ñëpp am nan sens jël réew mi waaye léegi nag nan lañu xoolaatee ci biir xam-xam ba xam kan moo gën a am sens ndax sens am na waaye ki gën a am sens am na baax am na waaye gën a baax am na boo jëlee maanaam 1 bi nga pilit ci 5 daf la jox chiffre 6 te six mii dafa bokk ci chiffre yi nga xam ne dafa yéeme lool xaw a baatine mm-hmm. ndax six yaakaar naa boo ko jëlee boo jëlee six nga daal di koy multiplier par onze mooy tur yàlla wi ne mm-hmm. daf lay jox soixante-six jàpp tur yàlla wi ne allah te allah mboolem boroom xam-xam yépp dañoo wax ne mooy ismullahi al ansam ndax allah mooy tur wi nga xamante si ne nii direct moo dal ci jëmmi suñu borom bi nga xam ne du sifaat ndax fi ne ni boo xoolee rahman sifaat la mooy aw melakaan la mooy ki ëpp maanaam li nga xam ne moo yërëm jaan ñi nekk ci kaw suuf moo leen di jox ay xéewal rahim tamit noonu sifaat la waaye Allah fi ne nii mënoo mosoo gis kenn kenn koo xamante si ne nii dina ko tuddee doom wala dara mhm. loolu amul abdourahman am na abdou samad am na abdourahim am na abdoulatif am na abdoulmohimin abdourazaq waaye Allah kenn du ko tuddee doom ndax moom mooy jëmmi zaat léegi nag li tax mu gën a not boo xoolee fii allahu boo xoolee fii un la lii trois la lii tamit trois la maanaam geneen la maanaam laam gi trente la mais trois ngay bind mhm. geneen laam gi trente la lii xel kubéer la gis nga ko même boo ko jootalaatee boo jëlee gis nga ko xoola ni ma nga ko mën a expliquer xaaram bind ko fi mu gën a leer boo jëlee gis nga cinq bii nga teg ko fii nga jël trois bi teg ko fii jëlaat turaab bi teg ko fii jëlaat li teg ko fii fi ne nii boo jëlee mille trois cent trente cinq plus euh, cinq mille trois cent trente six boo ko xoolee six mille six cent soixante six la lay jox jàpp na benn ismu laayil ensemble boo xamante si ne bii boo ko tuddee benn yoon aajo jot ñaan suñu borom faj moo tax moom boo xoolee borom ismu laayil ensemble moo koy ñaanal moo tax lu gaaw naan moo tax itam mu maanaam njër mu bañ a jël yëf yi loolu jafe-jafe lay doon te boole ci itam boo xoolee mille six cent soixante cinq bii foo fekk nga xool aw turam ak turu yaayam ak ak bisam ak yooyu mu jeexee chiffre cinq mu tóol koo ko fekk fonk mystique la ku fonk sarax la ñaare lu mu am rek ci mystique la koy amee te ñaare itam ku naqaree xeexal lay doon ndax day tóol ndax xam nga juróomi nit bu ñu xeex ñaar ñii maanaam maanaam ni ma la ko mën a expliquer huit personnes. comme ni joomaay tóolee rek. jeex na joomaay tamit. dafa tóol waaye boo xoolee bii moo gën a garaaw ndax kii deux bu làq un boo xoolee ñetti personne kii nag cinq personne moo tax ay rawxaanam dañoo ëpp doole rawxaani kee te itam boo xoolee moo maanaam moo gën a fonk mystique jumaay moo ko ëpp tamit lu muy génnee saax moo tax fi ni nii boo xoolee moom boo xoolee fa tàmbalee ba fi mu agsi nii lu mu mës a xëccoo nii rek ñaari moo ko jël mm-hmm. yaa ngi koy gis fi mu àgg xeetu ministre yi te du ci def kaso mais dafa Bassirou Diomaye Faye itam am naa loo xam ne mën naa ko koo dimbale ci loo xam ne bu bu fekkee patriote yi mën nañ koo def moom mën na koo jariñ mooy am na ay ndëgg sërëx yoo xam ne si ni am na ci ndax boo jëlee mille sept cent soixante et un plus six loolu ñaata la du sept plus sept ñaata la quatorze la quatorze plus euh, un quinze la boo xoolee kon 15 boo xoolee 1 ak 5. mu daal di taxawaat ci chiffre Amadou Ba bi. foofu doole waaye loolu mystique la baatin la. am na loo xam ne sax nag maanaam néexutu wax. tu ah. ma ko wax waaye bu fekkee maanaam man na ko moom man na ko moom li gën ci moom ñu saraxeel ko ko bu fexee ba am lu tolloo mille sept cent soixante et un personnes kenn ku ci nekk daal koy saraxeel culob tàndarma ñu wertal ko laa ilaha illallah 1761 ci 1761 personnes kenn mënu koo tee jot yaakaar. moom Joma dëgg si rax bu ñu def itam mën naa yàqu. am na tamit leneen lu gën a biire loolu loo xam ne ab xalwa la. waaye loolu du ma ko wax waaye loolu maanaam moo ci ne. ñoom ñaar ñoo bokk fenn fu mu ñoom ñaar ñëpp am nañ chance ci toog ci raisul dawla bi waaye jamono jii may waxee yow Amadou Ba moo gën a. moo waaw ndax moo gën a fonk musique moo gën a loolu maanaam mooy li nga xamante si ne nii moom lañ ci tënk. am li nga wax ci saraxu joomaay bi bu ko appliqué moom it day bu ko waaw day métti fële. Mhm. ndax maanaam ab xeex la boo xam ne si ne nii ci biir lay am. Mhm. ci wàllu musique. Mhm. ndax adduna lépp suñu borom da koo tënk muy daw ci mbirum rawxaan ak xeetu mel noonu. moo tax maanaam loolu ma ko wax bu ñu ko def ñoom nañ ko def. ñu def ko ndax lu am solo la ci moom. 1665 bi itam boo xoolee 166 mi ngi ci. cent 166 boobu itam ab ak benn jeexital boo xam ne dina ko def ci Amadou Ba waaye loolu du ma ko wax fii ndax bu ma ko waxee day xaw a yéeme waaw waaye lu ama am solo la te tamit lu mat a xam la waaye maanaam nii ma ko waxee nañ ko seetaan yi nii te jàppee ko nii kon daal foofu la ñuy yemale exposition bi incha allah ba beneen yoon. mais xanaa kon fi ak fan yu néew it dinañu mën a mayaat beneen exposition. incha allah ak yeneen yu gën incha allahu taala ñëwaat ci yeneen xam ak ci yeneen domaine. incha allahu taala alhamdulilahi rabbil kon fu mu ne nii nag sëñ Modou Ndiaye lan ngay tàggoo mbokku ñoo ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa yàlla na fi jàmm yàgg. te sax fi. te itam euh, élection yi di ñëw tamit ñu def ko ci jàmm te génn ci. ci jàpp barkeb Sëriñ Tuubaa barkeb xasida yi barkeb Nooru Daarayni waaw yal nañ saa borom may ak dégg aku topp loolu sëñ bi wax ci Nooru Daarayni naan wal xawla saddid wal faari nawwiri yaa mun ci leen xam ju télé bi soore yal nañ ko sëñ bi defal ci barkeb Sëriñ Tuubaa jërëjëf bég nañ lool kontaan nañ lool